nagoonum fana simangoolum wer fay biram penda waagan dugu dugu waagan ays waagan hakkaana ka salmun fay no hay beranono no ɓey wo ndefna nijaaya simena juuf juufa ñoko yaane taana buur sin kumandoo juuf no hay doonanaan te no ɓey du xam ngeen lii dëkk bi fukki at ak ñaar a ngi nii ay saltalkat ñoo fi nekk saltal nañu njàng mi saltal nañu paj mi saltal nañu napp ji saltal nañu mbay mi dama dem Bignona benn mag ndeysaan xam naa ni war na am lu mat quatre-vingts ans xëccoo buuxante ñaan ba egg si man nee ma bale bii maa koy teg sa loxo ngeen balal ñu réew mi ba mu set ngeen teg fi lu bees doomu ageen yi dañoo sas doomu jàmbooñ ma ne sas wi dama koy yóbbu ci samay mbokk ci siin gi ma soqee ko ma dem ne leen seen doom sas nañ ko te sas boobu bu ngeen ko ci jàppale amul lenn lu mu war a ragal dëkk bii waroon na dépassé fii waxuma la sax gox-goxaan yi mais Fatick dafa am loo xamante ne daanaka fenn amu ko Sénégal ku dem dans les îles fii dans la région de Fatick nga xam ne tourisme war a fuwen tumuranke ku taxaw fii tey ay fourniture am dugub lañu ñu doon jaay di ko ci jëndee kon kooku du waral seetaan mukk fuy béykat di toroxee déggoon ngeen ma ci xeexu ndengaleer ma xeex ci ba ñëpp dégg ko taxawaay boobu laa bëgg am fu ne fépp fu ñuy sonalee béykat à partir de dimanche 24 mars 2024 o xooxoox xana refu maat kam Sénégal mbokki Fatick mbokki Sine Saloum on a une occasion historique d'opérer une rupture fondamentale dans la gestion de ce pays-là càcc gi doy na jot na li ñëpp bokk ñëpp jot ci